Euh, comme ni ngeen ko xamé tay 8 mars la té buñu né 8 mars moy bëss bi nga xamné ci lañuy délo euh, delloo jigéen yi nek ci aduna bi yépp euh ñun wa Dakar numéro 1 nak dafa am ben euh, melokan buñ koy buñ koy buñ koy fësalee moy ñu daldi dajalé jigéen yi fenn né dañuy and ak ñom xex ci jàngoro bi ñuy cancer ndax comme ni nga ko xamé cancer limi muy ci aduna bo dajalé won li sibiru di ray li accident di ray

mungi ci ñom wala qui bu fekke mungi ci ñom ñu jëm leen euh, dimbali pour faj bu fekke nek ci ñom aussi ñu jëm leen a euh, euh, daldi manière la utiliser pour nous a en tout cas xol ndax wala alors je pense que lolu tontu bi dina yomb tontu dina yomb lu waral moy bo gisé bëss bi nu mel nga ne Grand Dakar dañu ak seen monsieur le maire euh pour bi réussite.

donc lolu dama que sawar donc lepp lu mu laaj wax len ma ma dal len pour lolu meuna nek donc lolu mo waral ñu ñew fi té monsieur mbé vraiment ñu koy gërëm ci euh, parce que biñuy ñew euh, suba dañu néwon euh, lu lu lu 300 femmes bëggoon nañ dépister. tay ji ëpp nañ ëpp nañ ñetti donc ça veut dire que objectif est déterminé am nañ ko té bu c'est parce que ay nit ci Euh, di ci ji jiitu mooy maître Malick Sall bi nga xam ne mooy sunu parrain lépp loo xam ne war na ko def ci bés bi def na ko ci ndax xam euh, xam ngeen ne jàngoro cancer dafa metti donc pour nga faj ko tamit dafay metti te lépp loo xam ne financement la lépp loo xam ne consommable dañu war a jënd pour machine mën a dox loolu yëpp jàpp na ci dugal ci loxoom bu baax a koy gërëm ko sant comme également ni sant mairie bi ndax euh, lii yëpp amee tamit parce que vraiment ñëpp ci jàpp membre jeune chambre yi ñoom ñëpp ci jàpp donc day nekk loo xam ne dañuy woote rek képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi war nga tamit saa yoo yeewoo xool lan mooy jëmale askan wi kanam nga jëm cee jàpp donc ni ko monsieur le defee ni ko maître Malick Sall defee noonu la ñuy waxee ñeneen également ni ko ñëpp def ndax lu benn di def ñaar nit ko daax donc bu ci ñëpp jàppee rek yaakaar naa ne feer boo ñuy waay cancer dina jóge ci dëkk bi et que euh, askanu Sénégal bi daal di am wér gu